mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi dellu di am mbégte di ànd ak yéen ci rajo Futur Média dellu di am mbégte di ànd ak yéen ci xalaas suñu journal fait divers fii ci RFM di ba vendredi jaajëf Aliou Ba mi nekk ci machine bi jaajëf soxna Yacine Pouy ci digital bi gërëm nag sama waa ji bu baax a baax l'homme de Maroc l'homme de tous les temps le phénomène passe partout maa ngi lay nuyu bu baax a baax. dellu di am mbégte di ànd ak yow ci xalaas Ndiaye di la nuyu di nuyu auditeurs yi nuyu internet di ziar ñëpp ñëpp ñu ngi déglu di leen ñaanal jàmm. jaajëf jëf waay. waaw li ma jaaxal mooy da dem Maroc. waaw ay ab diir la ñu ci teg buuru Maroc ñëw Sénégal loo fa def. maa ngi wax sànq euh, directeur ma ne ko. Eh. buur bi dafa ma am message ni ma dafay ñëw Sénégal. xam naa nag bon du neex a gëm nag waaye. dem naa fa daal dem faa liggéey bu rafet ba buur bi kontaan ci liggéey bi ne dafay ñëw fii ba ci président Macky Sall wax ko ne ko ndaw la ngeen yabaloon ca Maroc def na fa liggéey bu rafet feeñal na fa yu bëri yu nëbbu woon yoo xam ne ko woon te xam nañ ko. est-ce que waroon a njëkkee ci kon. <laughs> bu dee dalay sant si rek yaakaar naa ci Youssou Ndour la war léegi njiitu réew bu ñëwee dafay ñëw ci homologue am après homologue bi passé ko témoin bi mu dem gis Youssou après Youssou gis ñu mu war a gis ñu woo ma man tamit ñu gis ma yow dama sa ordre protocolaire waaw ah d'accord gërëm partenaires yi ñuy gunge ci xalaas bokk ci Optique Vision Plus Sénégal ñu ngi leen di remercier bu baax a baax lunettes yu baax lunettes yu garanti lunettes yu yomb damay wax ne boo ko bëggee ci réew mi jënd ay lunettes te doo ci am dara lu la metti da ngay dem ci boutique yu Optivision Plus Sénégal yi mhm. da nga fa fekk lunettes la ko ci diir bu gàtt ñu a Optique Vision Plus Sénégal yi showroom bi nekk fii ci Eden bi ñu am boutique bu nekk Mbour am nañu boutique Touba euh, fi nga xam ne moo kër Mbay Fall boutique Optivision Plus Sénégal am na fa ñi dëkk Saint-Louis ak ñi dëkk Louga waxatuñu dara ndax ubbil nañ leen fu ci nekk boutique Optivision Plus Sénégal seen numéro téléphone di 33 821 54 57 77 479 63 38 établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère kant ñoom ñoom ñi ci gaamu vite fait bu baax bi te garantie mucc ayib teg ci vite fait gaam la bu complète boo xam ne lépp lu nit di soxla ngir sa dund neex waa établissement wa kër Serigne Touba Fallé frère andi nañ ko def ko gaam dama lay wax ne ñi ngi ci jamonoy sedd ñu indi crème indi crème-pied marché boo dugg boo laajtee crème-pied wala crème bu vite fait am na fa efficace na xeet gi neex na te tamit dafa maanaam euh, matière yi gën la ñu ko defaree amul benn benn jafe-jafe bu muy def ci ci ci ci yaramu nit ki ñu indi frotté bu efficace ñu ci ne cuuraay bant wala euh, li nga xam ne moo di cuuraay buy neexal kër marque vite fait yooyu yëpp ci gambi a bokk établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère ngeen mën leen a jot ci 77 555 11 11 77 555 11 11 wala 77 77 806 15 19 ñu jeexalee ak bijouterie la Roton bijouterie bu mag bi ci réew mi di bëggal nit ñi moom mi ci mbégte mu euh, baax mi ndax euh, bijou en or bijou en or euh, de qualité 18 21 ba 24 carats boo demee bijouterie la Roton da nga ko fa am ay bijoux de de de yu marque yu gën a kawe marque Pomi Kawora Paola yooyu ci ay marque la yoo xam ne indi nañ ko ma la koy limal mais bis mm. boo fa demee da nga kontaan da nga gën a gis sa bopp ci yi am ci bijouterie la Roton ñi ngi rue Amadou loolu laa rotoon ci réseaux sociaux bi seen numéro téléphone di 33 842 65 95 wala 77 348 96 96 bu leen neexee mën ngeen leen a woo ñoom bijouterie laa rotoon ci 70 639 60 60 Kiren avec Orange également ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci partenaire hmm. ci ànd bi ñu ànd ak xalaas mais gunge gi ñu gunge waa Sénégal ci mois février bi mu di mois euh, Saint-Valentin euh, ñu tuddee ko Saint-Valentin 2.0 ak ak ay yu bari yoo xam ne andil nañu ko nit ñi ci seen euh, sa promotion Saint-Valentin 2 point 0 qui ren avec Orange jaajëf ñoom. jaajëf ñoom. ayca. jaajëf ñun tamit. di gërëm bu baax nag suñu suñu suñu suñu suñu suñu mbokki laayeen yi nga xam ne. appel bi waaw euh, xew-xewu diine bu mag te mag. Mhm. Mhm. muy tey di suba. Mhm. ca Yoff. Ngor Cambérène Diamalaye ci réew mi yëpp daal pour mu gën a gàtt. Euh, di ñaan rek. lépp lu ñu fa lu ñu ñaan suñu borom may ñu ko. amiin amiin te ñu yàgg ko féete nag ay ati ati yàgg ko màggal ay ati ati ati ati at yàlla na yàlla na yàlla dem. waaw moo tax dama laa mm. gis rek sama xel dem ci. chaque ca. incha allah damay dem après ma dem Cambérène. incha allah waaw après ma dem ci xuntu ba. Mm. Mm. d' accord. loolu jaruñoo jaay ñu ñu dëkk yoo fag ba. jaay man nitu diina laa de nag maa xamul rek. <laughs> nitu diina bu laxatu laa de. fu ñuy tàmbalee. baax na démb ci waxtu wii. ani Ababacar. moom laa la bëggoon laaj de. Mm-hmm. <laughs> mais nag non fii nag moom pour ma sa euh, décharge. waaw li ko téye ci moom xam nga bésu diine su amee. waaw programme Futurs Médias ah, day soppi xar kanam waaw waaw donc euh, fi ne bu fi jugee. waaw Yoff. dañuy synchroniser ji. nga euh, Ngor donc moo tax xam nga nag. loolu nag mënut a ànd ak. Euh, àndul ak dëggantaan am <laughs> ak dëggantaan. ak dëggantaan. ànd dëggantaan da naan mbalax yi ci dëggantaan mu àndut ak loolu. <laughs> tey RFM. <coughs> fu ñuy tàmbalee. tey RFM Ndiaye dem ci waxtu wi. ñoo ngi toog fii di xalaas. Mm-hmm. ñaari pa gàddu seeni saag di jaay parfum. neuf heures pile plus précisément. Mm-hmm. dugg ci benn multi service. Mm-hmm. gis nga xam bii ñuy jaay parfum dañuy ñëw. xeeñaral la pour nga. échantillon daal effectivement na ko nit bàyyi. fekk ñaari waaye tamit service bi. Mhm. xëy na leen parfois. Mhm. gars yi taaxlu ko seen sago. paa yi di leen laaj xaalis gars yi di leen jox. ñu leen di laaj gars yi di leen jox ba ñu egg ci presque deux millions. Hmm. démb ci waxtu wii laa la wax. ah illah illah. bi client yi commencé dugg ci place bi. paa yi ne fes. gars yi mel ni ñu xamale ko. ah yóbbu nañ xaalis ba. dem nañ. ñu déglu déglu. ay 9 heures ci la ñaari gars commencé di wax ak ñun ñu nuyu ñu daal la ñuy puisalee parfum yi après ci la ñu def nii rek xëy la ñu mel ni comme si que ñu laaj xaalis ñu leen di jox affaire bi daal noonu la demee après nag bu clients yi commencé waat di ñëwaat noonu ci la ñu commencé di kiiwaat suñu xel commencé di ñëwaat ñu xam ni que gars yi dañoo am quoi moom daal noonu daal ba yóbbu xaalis mooy comme genre paille yor seen saa yi di jaay parfum affaire yooyu noonu. non jox ñu sur le coup nañu laaj gars yi ñuy joxe nañu laaj ñuy jox après daal dañu dañu comprendre buñ toogee ba quelque temps après amay client yu fi dugg taxaw commencé bari daal ci la ñuy soogee comprendre te dañu xoolee gis ne xaalis suñu wala. dégg nga Ndiaye. léegi li ma jaaxal mooy. Hmm. doon naa comprendre. Hmm. ñu defal leen parfum pour ñu am échantillon xam ne parfum bi di xeeñ. ñu fóon ko. Hmm. daal di xëm. xam naa ko. mais ñoom bi ñu ko fóonee. Hmm. xamuñu ko seen sago. Ah. dañu mel ne comme xam nga gars yi mën nañ def dara nuyoo la ko wala. da ko ci xeeñal la ko wala yooyu noonu. njaay réew mii. Hmm? ah waaw baax na. joxe loxo dañ ko téye man damaa xam ne kat ñu ne corona dëkk bi ñëpp téye seen loxo dóor ko daa ngi ci dëkk bi ñëpp di joxe loxo. ba ba ba ba foofu amoon na ay caméra de surveillance. ah ci wax ji nag waxuma ko nag boo ko amoon xaar dina ma ko yónnee. adit ah, mais barab euh, lieu bu mel noonu ñu fay jaay ak di jënd ba som bu toll noonu. mën faa am. Hmm. donc war naa am aussi yenn garantie yi. ah naturellement. war am yenn garantie moo tax dañuy sàggane gardien. Hmm. mais gardien lu baax la. commerce bu mu mënti nekk bu ko seen borom mënee dañoo war a wut gardien. Hmm. di ko fay lu baax. du ko jar ndax peut-être paa yi bu ñu duggoon ci multi service bi xëy na mën nañoo nax ñi ci biir. Hmm. mais gardien bi bu bu bu gisee. soit dañ leen xàmme wala hmm. mën na leen a mënoon na leen a dimbale daal. identifier leen quoi. exactement. en na nit ñi moytu rek njaay ay man yooyu sax moom même bu dul dara sax ay ñëw damay xeeñal parfum yi parfum da ngeen jënd ko fi ñu koy jëndee. parfumerie ba a na waaye ñu dañu wax dëgg maa ngi dégg benn benn benn histoire bu xewee fa la ca boori Ndofane xam naa ne après dinaa ko jéem a topp. Mhm. ñaari samba tamit ju dugg dajji benn kër fekk fa benn xale bu jigéen yegg ci kawam sàcc yi bagaasam ba pare jàpp nañ leen. ñi def loolu. waaw te biñ leen jàppee nekk ci koñ bu leen dëkk. Ndofane. waaw Kaolack waaw. xam naa ne après naa ko gën a léegi léegi su ma paree bu soobee yàlla. ay ñu doxal. beneen dóor. bu neex. Ndiaye ñi dugg ci mais boy dóor mu mën a neexee. waaw mais non xam nga xam nga dafa ñoo xamante ni. amuñu xelu créer entreprise. Uh-huh. amuñu xelu business mais am nañu xelu dóor xeetu dóor yoo xam ne boo ko déggee da yéemu. Mm-hmm. xam nga Ndiaye ñëw dugg ci bus. Mm-hmm. fekk Mouhamed Ndiaye jël saagam def ci ay ordinateur am def ci ay xaalisam sama yooyu comme tataay boo ci duggee am na côté chauffeur fu ñuy teg saag noonu ko mm-hmm. nga teg ko fa moom mu ñëw gàddu benn saagam. toog ci wetu saag yi ba ci yàgg mu teg fa saagam jël saag yow <laughs> ndeke saag ba mu fay teg sax moom du saagam saag bu mu sàccoon la jëlem ca soxla ñëw remplacer ko sa dem léegi sa saag doy dem encore remplacer ko feneen saag yi du tourné. te saag bu mu ci jël day récupérer lim ci soxla. mangoog utiliser waat ko pour sàccaat. ci oto yi lay lay am loolu. waaw waa ji ñu sàcc ko bàyyi fa beneen saag. mu jël saak ba woo kooku naa ko da ngaa sama saak kooku nag ma doon sàcc sama saak bàyyi ko bàyyil ma beneen saak encore ku ñu woo nga wax loolu saak du tourné rek. mais ba saak bi mujjee dem xaalis nekku ci woon. ordinateur nga ca ab étudiant la ordinateur am ay document lépp ngi saak ba waa ji rocc yëpp ñu déglu déglu. donc tey dama ñëwoon ngir tirer attention képp koo xamante ne si yaa ngi dugg ci transport urbain yi mooy tata yi nga xamante ne si ñoo ngi daw fii ci biir dakaar ci biir dëkk bi yëpp nag ci ligne yëpp pour ñuy def attention. bu buñ duggee ci biir yi di teg seen saag yi parce que am na benn sàmba booy buy dugg ci biir euh, tata yi bu duggee leen la fay def mooy da yor benn saagam xëy na def ci bagage yu ñàkk fayda bu duggee tegandoo saagam ak fi nit ñi di teg seeni saag bu ko kenn bàyyiwul xel mu jël saagub jàmbur wàcc bu ko jëlee wàcc da ciy jël lim ci soxla matériel yi am solo yépp lay jël jëlaat saag boobu duggaat ak moom ci beneen kaar bu demee tegandoowaat ak ñëpp jëlaat fa beneen saag wàcc noonu la koy toppoo parce que man mii dama koo def def na ma ko jël sama saag bàyyil ma beneen saak ma jël saag boobu visité ko gis ca contact ma contacté borom jot ko laaj ko ni ko da ngaa jaawale sama saak mu ni ma moom dañoo jël saagam bàyyil ko fa tamit ak beneen saak kooku tamit saak bi ñu ko jox contacté nañ ci jot borom moom tamit mun dañoo jël saagam noonu ma ko defee noonu la ko defee ñeneen man mii sama saak noonu la ko def jël ko jël lim ci soxla ordinateur mi ngi ci woon xaalis mi ngi ci woon ay yére ñi ngi ci woon ak yenn yeneen bagage ak ay document yëpp mu jël ko jël lim ci soxla yëpp tegaat ko feneen jëlaat fa saakub jàmbur noonu lay def ci biir kaar may tiire attention ñëpp nag képp kuy dugg ci biir transport urbain yi nay bàyyi xel waa jooju noonu. xalaas. dégg de. mais lor nañ ko de. nii lañ def. lor nañ ko de gis nga jël jël ordinateur u étudiant. Mhm. mook jël fetalu policier ñoo wallaay ndax maanaam li kim diir bu yàgg boo xam ne ay gëstu. Mhm. lor nañ ko de na ko dimbale indil coordonnateur bi. xam sàcc bi waaw. mais xam nga xam nga réew mi jamono toll na foo xamante ne ji sàcc ordinateur wala sàcc yenn téléphone yu cher yi risque la nga xam nga lool. bu fekkente ne ki ko moom. Mhm. jaral na ko. Mhm. day métti waaye dina ci jot. da koy localiser. moo tax nag kuy kuy sàcc daa am xel. waaw da fiy bàyyi matériel électronique. mos ngaa gis Ndiaye sàcc bu sàcc ba ñëw delloo ko. déedéet moom kay dañuy sàcc jël lañ soxla sànni li des. maa ko sàccoon delloo si mais heureusement ba moom étudiant bi wax na waa ji ni muy ni muy ni mu ni muy ni muy doxalee exactement hmm. léegi nag dina tax ku dugg ci oto déjà sa saak jarul teg waay sac mënul diisal boroom surtout biir Dakar surtout sac amee yi jëlal nga téye ba wàccee wàcceek moom hmm. ñu dem feneen dëgg dëgg njaay caam l'infographiste du infographe nag hmm. déedéet mais noonu la tuddee boppam te am dafa graphiste daal benn page Facebook la mhm. day jaayee téléphone. xale bu jigéen bi contacté Thiam Thiam na ko da ngay dugal avance. da ko contacté pour jënd ci moom téléphone ci moom téléphone. Mhm. léegi fexe na ba teg na paramètre yoo xamante ne moom xale bu jigéen du ko mës a gis. foo am place Thiam ne ko Sandaga téléphone bi ñaata mënu ko cent cinquante mille xale bu war a dugal quatre vingt mille xale bi yónnee ko quatre vingt mille càmbul ak xale bu jigéen bi. xale bu jigéen bi woote Wave càmm woote Wave ne dama ko jaay téléphone dafa maa bëgg a dóor. <laughs> déggoo ma de waa Wave bloqué xaalis bi càmm bloqué ndaw si di di di dàqante waa Wave pour pour ñu jël xaalis bi. pour ñu jël xaalis bi xale bu jigéen waaw xale bu jigéen ñu contacté caam caam ne ko demal RFI bañ ci duggee nag ñun ba expliqué gars yi def appel à trois pour moom caam ak ndaw si caam coupé waa Wave waaye yow na xam ne kii ab caaxaankat la ñu bloqué xaalis ba mais déglu ndaw si ak caam. affaire bi de demeewul nii lu dul bi ma joxee numéro am whatsapp am ni ñëw fii whatsapp mooy audio yi ma la envoyé nii rek ñu waxtaan man ko noonu tudd mun moom Cheikh Ibrahima Thiam la tudd sa place fan la nekk waa ji ni ma mi ngi fee Sandaga la nekk côté palais de justice ma ni ko ah d'accord ma ni ko man global aw ma ko par tranche laa ko mu ne pour XR bi avance benn somme bi li des ma fay que deux mois ba mu ni ma waa amul problème kon que je suis man tamit kenne demul ma des xalaatuma defuma dara parce que waa ji man wax naa ko sax si vocal yi nee naa ko man minu vente en ligne yi nekk moom mu tontu ma ba ni ma gaay sax dangay doy waa nekk te moom moo nekkoon sama dóor ni ma fotool sa pièce d'identité recto verso nu ma ko waxee noonu laa ko defee lënd bi desul lu dul ma koy dugalee xaalis mu jox ma numéro orange bi ñu doon déggante ma moom ma dugal ko ci dugal ko ci ma si expresso woon ni ma léegi dama war xaar pour demee ma ni ko demee nag dama ko dul xaar parce que léegi lañ waxante léegi bi ñu waxante léegi nga ma koy envoyé léegi mun ma day doo xaar ma ni ko léegi bu fekkee dem na maa ngi woo sama cousin vu que day def cag-cag kooku dina ñëw foofu mu jël si ko mun ma déedéet xaaral ma génn xool gars yi nekk fii xaaral ma génn xool gars fii ni woo ma ni ma xanaa livreur dina la woo ni la maa ngi lay indi li dégguma livreur ba ma wax ne ko jox ma numéro numéro livreur bi mun ma jox ma beneen numéro fu may waatee waa ji mu ma Facebook laa woo waa ma woo leen di leen ko xamal ñu ma sii sii gis nañu signalisation bi waaye bloqué nañu compte bi bloqué yeen compte sama xaalis nga transaction bi man maa ko def ñun dañ woo waa ji jox leen beneen version ma yóbbu sama lettre de récusation bi ma jëlee ko waa Wave waa Wave defal à droit di ko woo moom mu coupé waa Wave mu ñu waa ma indil XR jox na ma ka ma leen XR boo xam xamante ni daf ma jox léegi na wax livreur bu ma ko jox bi de un de deux lu tax moom mu filtre ma fee de trois lu tax mu bloqué ma lu mu tudd messenger nit bu jotoon ICR ndax nga ko xaalis ndax ICR jarul quatre vingt mille. léegi après da nga koy dugal su paree rek mu complété quoi mu problème kenn nga ko soxla yow su loolu la nekkee da ngay dugal soixante après nga dugal bu mat jox la téléphone bi wala jox la téléphone bi bu matee daal ay quatre vingt mille après ñu jox la téléphone bi li ci des nga continuer di ko fay. non ñun buñ la ko jaayee sax dañ la koy ibbil léegi yow boo en mën nañ ko def à distance quoi da may envoyé sa nom ak prénom bi après yow nga ma kii bi quoi nga envoyé ma numéro téléphone bi ñu ci bëgg a def ñun biñ ko ubbee bu ñu après dañ bàyyi kii bi quoi numéro euh, kii bi ni koy waxatee mot de passe bi koy bàyyi waaleel par message après boo jotee loolu mooy nekk sa mot de passe bu neexee nga modifié ko bu a neexee nga bàyyi ko noonu nan nga ko def mot de passe bu la neex Ndiaye mais parce que est xam nga waa ji mi ngi toj dëkk bi. moom càmm mi. waaw parce que kii nee na def na ko ko. Uh-huh. même gars bi mais du ci téléphone ci ordinateur la. léegi dama leen di wax damay leen benn affaire ñu bàyyi ko xel. Mm-hmm. Sénégal yëpp nag même bu dul ci càmm yi nii nañu bàyyi ku ñuy séqal njënd ak njaay ci internet bi ñu laaj sa carte nga yónnee ko ko. xam nga lu tax. Mm-hmm. gis nga ñii di dóor téléphone yi ñuy yor duñ ciy identifier seen tour yaa ngi dégg numéro yi. duñ ci identifier seen carte d'identité carte d'identité yi ñu leen di yónnee lañ ci identifier nañ bàyyi dem ak téléphone njëndam ordinateur njëndam nangam yónnam sa carte d'identité nga foto yónnee. léegi kon ñoom aussi acte bi ñu leen di teg maanaam li ñu leen di xelal moom la ñuy xelal ñi seen carte d'identité réer. mangoog donc ku sa carte d'identité réer demal nga déclarer ji ko police. du ko moy nit dina ko jël. def fi naka su dul noonu. après yow yaay am problème. dégg naa am na ñoo xam dañuy xëy di wër ci côté am na yenn lii yoo xam ne dañu fa kaan dañ ko fa accroché. ko fa accroché tuuxi doona dem seen yoon. am na ñoo xamante dañuy dem garanti ko loué ci. def ci benn location garanti fa carte d'identité ba dem seen yoon. merci donc pièce moom bu réeree demal nga déclaré ji ko. beneen bi tamit Mohamed. Mhm. yow boo amee benn plaignant par exemple. nga joxe garanti sañ ngaa joxe kayitu jàmbur yow. comprendre ma. comme tey man nga am loo ma yoral lu war ma jox garanti. Mhm. nga dem jël passeport Yacine bi jox ma ko. déedéet. ñi koy nangu est ce que ay nit la ñu tamit ah. ñu dem gaaw balaa allo président si ñëw paa bi lu def. paa bi nag Ndiaye. Mhm. histoire bu xaw bu xaw a doy waar la nag. Mhm. ñaari doomam ñoo koy wër. moom paa bi. waaw paa mi ngi dëkk Dagana mu am fa soxna. am ak moom benn doom. jamono yooyu doom ji xale la. paa bi mel ni ku ñu naawta la jógee Dagana dem côté Ndar. bàyyi fa doom ji. bàyyi fa jabar jeeg doom ji. bi mu demee côté Ndar aussi am fa jabar ndaw si wàllu lor avant xale bay juddu paa ba dem. jógewaat Saint-Louis. waaw ñu koy dégg ci géej gi euh, côté Guinée boori Espagne ñu koy un jour ba 2014 rek ñu woo leen seen papa dee na. Hmm. ah seen papa dee na. gisuñu photo gisuñu papier de décès gisuñu bàmmeel en tout cas kenn woo Guinée la leen woowee. nee foofu la faatoo. waa du dara nii leen ci tool léegi nag ñoom ñu dem ba benn moment seen frère papa ne man daal gëw ma ni paa dee na. Hmm. xam naa ay recherche ak affaire yooyu noonu quoi léegi nag ci la ñoom ñaar jugaat parce que ñoom ñaar mosuñu gis seen papa même ñu ko gisee photo xamuñu ko. te ñoom ñaar bokkuñu yaay. bokkuñu léegi nag kenn ki bi ngi bitim réew kenn kaa ngi fi mais paa bi daal lañ bëgg a gis waaw ñu déglu déglu. te suñu pap parce que ñun daanaka xamuñu ko amuñu fotom xàmmeewuñu ko bu taxawoon nii nii suñu kanam ñun ko moo tax maa ngi koy doon bàyyee loo xel sama rakk bi ne ko jàppale ñëpp sa bopp rek que amaana mën nga tase doomu paa bi wala paa bi si boppam nga traité ko d'une autre façon dangay bàyyi xel lu bari lépp luy dox nga bàyyi ko xel paa bi bi muy dem ñun ay xale lañu woon paa bi dafa ànd ak sama sama yaay ba man ma juddu si bi may nekk xale nag la dëkk bi dëkk bi ma nekkoon bi ñëw côté Saint-Louis ànd fa sama rakk bi nii man ma bàyyi lañ bokk ànd ak yaayam ba moom sama rakk bi judd fa léegi nag quelque temps sama rakk bi avant muy xàmmee paa bi dem comme genre luñ ko def di ko dem loo rek la dem nga ko dégg Espagne di ko dégg euh, Guinée di ko dégg fu nekk nga dégg mais ay dégg rek ngay am musuñu dégg sa voix musuñu am photom musuñu ko musuñu ko gis en fait bu taxoon ni duñ ko xam mooy dama la doon wax léegi léegi léegi nag quelque temps ay côté 2014 tamit sama rakk bi moom xale la woon te bu côté yooyu sax amaana laa gën a laa xam sama rakk bi si laa xam ne sama papa am am na doom côté Saint-Louis boobu man maa ngi def quatrième collège si la toog di añ rek si sama rakk bi yaayam woo sama yaay ndax boobu ñu ngi amoon contact wax ko ni ko dafa ko ko woo ni ko paa bi na bu mu waxee loolu nag man si saa sama yaay waxul dara mais de par sa réaction ma nekk si baat sama papa moo décédé ma déedéet doo wax jàmm ma sax lu mu mais mais étant si jeune du la affecté tellement mais plus ngay dem am na fa fafa di nga soxla sa àdduna ku la mën a guider parce que nit ku nekk bëgg nga sa papa nekk sa wet mais plus ngay dem amoo loolu yaay demal sa sa sa xelu bopp yaay nekk sa magu bopp loolu nag commencé ñu touché man ak moom ba sama rakk bi muy France man ak moom ñu si échangé un jour nag ma waxaat sama papa rakkam ñu waxtaan mu ne ma paa bi ñu bëri ñu nee nañ dese dana mais gëmuma ni dese dana léegi nag affaire bi xaw ma angoisse tuuti ma wax ak sama rakk bi ma ne ko comme ni la demee est ce que ñu duñ ci def comme dem nañ ba nekk nañ ay mag nii xam nañ bu baax lu ñu fu ñu teg suñu tànk ñun ñaan ñëpp bu ñu bu ñu jéngoo suñu borom dinañu suturaal ba ñu comme quoi voilà kat ki ñu annoncé woon décès bi ki ko annoncé woon maire bi ñuy jéem lijjanti numéro bi moo woote woon maire yi ne leen diw dafa décédé léegi nag ku décédé am na loo xamante ni baaxoon nañ ko xam mooy lan photo nit ki décédé ji nga envoyé ko wala aussi tamit nit ki bagage yi mu yi mu aussi tamit lan moo te aussi tamit gis ñu acte de décès buy prouvé ni paa bi dafa décédé léegi nag plus ñuy nag def benn discernement wax ni nañu jéem xool lan moo waral li ni mel ñun paa xamuñu ko bu taxaw nii nii nii amaana dañuy bës suñu xol ni kii mooy suñu pap rek mënuñu wax ni mooy suñu pap xanaa ñu woy jure wax ñu ko waaw ñun suñu papa mu ngi tudd Boubacar Mboup ñu koy wax euh, préfet il est plus connu sous le sous le nom de préfet daanaka ñu bëri loolu lañ koy wooyee mais turam la moom mi ngi ñaari bant Sénégal mi ngi dëkk Dagana nekk doom ci na Mbaye ak euh, Mass Mboup mi ngi jógee Dagana nag vers 1999 jàpp 2000 Boubacar Mbuub koy wax li ma leer mooy balaa suba di nga ci déggaat dara. incha allah. 150 17 17 mooy numéro xalaat. 77 ñu dem allo présidence. jërëjëf waay. allo président de la république président. Abbé Colobane ak Sandaga résidence catégorie président général yang palais la République résidence président de la République Amadou ah, Demba Rousseau Sura Khadija Plateau Cap Sénégal consulat 1912 sama dépal ma xaw naa yàgg lay mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AF le porcelain sama jàmm 964 ba ju 92 wala 2012 Macky Sall depuis 2012 ñam fi ñamaatu ñu xaaran ba xam kii woote ba ko jot président ko kala loonu fan lay woote salaamaaleykum waaw mais gars yi na nu mu demee nice sant wér joxan tur beeg sant naka waari naka affaire naka taxale yeeg bagage yeeg liggéey bi mais mbaa ñu am bu baax quoi. nga joxe tur beeg sant bi. ah maa ngi tudd Pape Diakhaté quoi. kaddu yi sànq ko. Pape Diakhaté Pape Diakhaté. waaw nga ni ngay waxee. Pape mais ni may xoola yow nekk ba jekk yow nga wax soog maa nga nga jekkal quoi. baax na baax na jërëjëf. lu la neex defal ma sa woote bi ci biir palais bi. ci waxtu bi ne waaw li may wax lu am solo la li may wax lu am solo la parce man Pape Diakhaté ku ma xam-xam ni man porte de voix la quoi. waaw waaw man ñoo ngi lay donc ñun ay waxkat la ñu nekk ci rajo kon rafet na quoi. ñu yëkkati ay kàddu jëme ci askan wi quoi. waa kaddu gi laay déglu ba xam. waaw d'accord donc kaddu gi mooy. Hmm. Euh, euh, euh, réew mu Serigne nekk maam El Hadj Malick nekk fa. Hmm. maam Bou nekk fa maam Limaamu nekk fa. Hmm. donc réew moomu bon réew jàmm la quoi. donc réew moomu ku ko bëgg a taal yaay tàkk. kon nan jël réew mi teg ko ci yoon xam nga. Mm-hmm. ki ki ki ki war a tegu ci yoon ñu teg ko ci yoon ku warul tegu ci yoon ñu ñu ne ko yow vraiment or yoon nga nekk ñu ñu teg ko foo foo xam ni mooy palaasam quoi mm-hmm. xam nga xëccoo xiiroo ŋaayoo coow xeex bëree daqe loolu soxla woon ko ci réew mi. Mm-hmm. réew mi dafa soxla jàmm gars yi lekkuñu naanuñu. sangu sax talatoo ko léegi ndax ndox moo bareetul robinet bi sax léegi tuuti lay xelli xam nga donc du ñu boole problème yooyu ba pare réew mi di bëgg a bari ay pëcc xooki coow loolu mënul nekk booy yi nan dal mm-hmm. réew mi nan dal mm-hmm. réew mi nan ànd koog dal kenn ku mm-hmm. nekk kilo ceeb léegi kenn xamatul lu muy jar dang kenn dankatu fi ceeb mu ni piic piic ndax diw gi dafa seer waaw diw seer na suukar seer ceeb seer meew seer. Mm. léegi sax omo bi nga daan jënd vingt cinq franc cent lay jar. léegi yow lan nga gis ne moom mooy solution. waaw li ma gis ni moom mooy solution mooy bu ñu ah. fi xeex bu ñu fi xuloo ndax bu ñu fi xeexee xuloo fi. Ah. day gën a métti ndax Covid bi rek war nañoo yee. Ah. Covid bi bi mu ñëwee kenn amul jàmm ban ne couvre fa kenn génnut. Uh-huh. kon nañ ñu dimbali ba couvre fa yam ca covid 19 may bu mu fi dellu si uh-huh, uh-huh. réew mi nañ dal réew mi réewum jàmm la ñun ay jeune lañu kon nañ tegu ci yoonu jàmm wax jàmm def jàmm bëgg jàmm waaye ku dee sa yaay juraat sa yaay bu mën a posé foo jëm <laughs> ah mais kon nañ nekk nit te bu dee borom jabar nga mën ngaa gaañu fii gars yi doon jabar waaw waaw mi ngi noonu <laughs> waaw say doom di wër di taxawaalu du ñu am bàyyi bu leen dundal ku dee sa yaay ménopause foo koy waxee. Mhm. kon nañ def ndànk delloo si xel te dal. te xam ne réew mi réewum jàmm la ku ko bëgg a taal yaay tàkk. dëgg dëgg dëgg. ah waay lii dafa ëpp waay. ay sëñ bi. Eh. votre correspondant peut-être. waay wax naa li ma bëgg a wax man. man ko fa nga coupé man